sëñ saa yi daan ne duma jël nit tëkku ci barab te matul doon daan ne seen jëwriñ yii ma leen di booleel mooy sëñ Tuubaa mooy seeni sëriñ tubaa ñuy seedal sëñ Tuubaa ne baa ma mëroon mii sëñ sëñ saa yi teg suñ kanam boo nu fekkee daara ji ñi liggéeyee li neex sëriñ bi rek ci la ñuy ànd ak moom ndax daara ji am na ci jëmm yoo xam ne bi ñuy ñëw ci daara ji sax fërëjoon ijji ndax boo demee ca daara ja aliou bu mag la fa def boole fa jëmm yu naan mën nañ cee lim kenn sax sëñ Saaliw jàng nit ñi ba koroog ñuy fay ijji kon kooka mi ngi ci li neex sëriñ bi te di ànd ak noonu ci nag ci dëgg teyit ak dimbalante ngir jëmmi sëñ Touba rek tax kon ñu ngi lay seeral kàddu yooyu ne waat naa ci jëmmi sëñ Touba wallaay asim li ñuy wax dafa nekk suñu xol barki sëñ Touba laay wax laay seeral ne ban ànd ak moom amul lenn loo xam ne safaan gis nañ ko ci loo xam ne waat naa ci jëmmi sëñ Saliou de tey jii su ma ko romboon wallaay asim mu nekk ci loo xam ne sëñ bi yorewul bu mu wooyu du ma ko wuyu waaye man biñ naa ci jëmmi sëñ Touba rus naa ci sama jëmm ji ba ma moroon woo ma ci liggéey sëñ Touba ñaari yoon mag mbooloo mi ñëpp wallahi asim lu mu bëgg ci daara ji ku waxee benn yoon rek kenn ku ne bu ko waxee suñu lëmin rek mën na ko eggale mbooloo mi te xam noonu nu ko nu mu ko bëgg rek lañ ko koy defale loolu lu ko waral mooy ni nu sëriñ bi yare rek la ànd ñun ni nu sëriñ bi yare la ànd du ànd ak mu ñukk ci àndu ñun ànd ak jayante wallahi asim kon ñu ngi lay seeral kàddu yooyu bu baax nu ngi koy tuub bu baax di ñaanal suñ tubaa yàggal leen fi loolu tëwéral leen Cheikh Mbacke mi nga xam ni comme noonu ko góor a waxee ci digganteem ak taalibe yi ne ci dëkk bi taxawaay bi nga xam ne mu ngi ciy taxaw saa su ne di ko ñaanal moom it lépp loo xam am na ko yéene def ci yoon wi rek mu def ko ci teeyu bakkan di la ko seede deew sëñ bi nga ñaanal ñu ko bu baax a baax a baax a baax ak yàgg ak wér waaye di la ziyaar yow sëñ Abdoulaye Mbacke moom sëñ Saliou moom sëñ Moustapha moom sëñ Saliou ni ko góor a waxee léegi di sàkku yi ci mbooloo bi yëpp rek ñu ñaanal ko bu baax ñu ñaanal ko bu baax ngir wax dëgg yàlla am na yéene lool ci yoon wi xëy na buñ dee naxtaay atam de mën naa bañ a sori lool ci saayam waaye jëf yi muy jëf ci yoon bi ku jaxasoo moom te xam ko rek di nga xam ni jëppi mag la ba ci calendrier yooyu ngeen gis bu weeru koor jotee daanaka moom mii moo koy taxawal moo koy def moo koy tasaare ci àdduna bi yëpp kon la maamam daan yare dongo yi moom teg na ci tànkam teg na ci loxoom nit ñu ñaanal ko ñu ñëpp rek yàgg fi lool tànd ak wér bàkke nag daara ji moom ñu ngi nii ni ko Mor Ndao waxee nii dañoo baax di wax rek waaye wallaay la si baax googu yëpp ci ñoom la nekk ñoom ñoo yomb a jiital ay jàmbaar lañu ay borom paseef lañ te ñu deñ réer lañ ndax sëñ Saliou Mbacke leen yar di la seedeel rek seen paseef ak seen dox man de li ma ñemee waat mooy bu ñu sëñ Saliou Mbacke bettoon ci dëkk bi maanaam duñ soppi seen seen toogaay la mu defoon ci yëpp ci ñoom it ñu ngi ciy wéy di ci dox daara jii nag taxawaluñ ko lenn lu dul rek fas yéene la nga xam ne sëñ bi defoon na ko ci ñun saa su ne rek ñu koy nàmmaat saa su ne ngir bañ këf dëkk bi këf ñu fa ñuy dajee it di ko fa defee ni ko Mor Ndao waxee noonu rek la demee àlliwoo gu mag lañ jën def ko fa ndax xam ni jàng du wees fas yéene jàng suñu diine jaamu yàlla gu ànd ak liggéeyal seen Tuubaa rek lañu fa nekkee at di dimbalante suñu biir kémtalaay kàttan at fu ñu déggee ndigalu sëñ bi rek jéem cee def sañu kémtalaay kàttan ci bañ a bàyyee dara mbooleem luy dem xel koom rek ñoom ñi bu ñu déggee ndigal li jug ba jaar ci man amatuñ ci sago ak leneen loo xam ne ñu ngi koy def ci yoon bi di ñaan na nga ñaanal ñu xel moom nga xam ne moom la sëñ bi def ci ñu ba ñu xam ni maanaam dara dara dara neefu lu liggéeyal moom sëñ bi gën ñu cee dimbale dëgëral ñu ko te làqal ñu ko foo xam yàq du fa yegg ba mukk di ci doole ay kàddu yu gàtt rek di soñ sam bopp di soñ mboolem ko nekk ci dëkk bi coow li bari na lool yëngatu am na waaye yëngatu bu amee nag naan tekk boo nee tekk boo nee tekk tekk lay wan yoon bu gaaw xëy na nag wax ji bari na lool audio yi jaar nañ ci di wax boo dégloo bari na audio yoo xam ni barki démboo njaay rek wax naa wax a wax a wax ba yegg si sañu xalifa général ci wax ni xëy na bokk na sax ci àddee ji ñi daja ci li ñuy liggéey ci buñ ci joxee président ba bañ ba ne ci réew ma président boobu ñuy wax xalifa général lañuy la ñuy jox lu tuuti lañ ci jox sañ njaboot dañoo umpale nag waaye nit bu umpalee bu wax yow na nga koy faje mooy nga xam li sa li la sëñ bi defal nga teg sa nga teg sa tànk mbëri lu ne nag ñoo ngi koy wax fi mu nekk nii ci yëngatu yéeg ci yeneen ak yeneen waaye liggéey sëñ bii liggéey sëñ Tuubaa bii ñu nekk ci dëkk bi mënuñoo delloo ginnaaw liggéey sëñ Tuubaa bii ci dëkk bi mun ta tax tubaab si jaar ñu fenn ba bëgg ñoo jam nañu xam ne barke borom Tuubaa Mbàkke bis bu ñu noppee liggéey sëñ Tuubaa ci réew mii nopp fee yëkkati ay xasida nopp fee màggal nopp fee cant barki Seexul Xadim bu keroog la ñuy la ñuy gën a am jafe-jafe ci réew mi kon ku ñu koy bayoo ku ñu koy baloo rek xamal ne duñ la déglu sax ndax pexek seytaane képp la tey la ñuy gën a màggal barki sëñ Saliou Mbàkke le 9 juillet bii di ñëw la bisub xasida ji bopp ko yëpp la ñuy takk barki Rasuul lay fu ñu war a marché rek danañ ko fa marché sëñ Tuubaa képp a fi ne lii nag moom dakaa ñaanaloon boppam lii moom da kaa ñaanaloon boppam keroo ba ko tubaab yi génnee réew mee yóbbu ko fañ koy yóbbu ngir sañu jëmm yi ñoo taxoon ngir sañu jëmm yi ñoo taxoon waaye la ko yàlla faye mooy lii jëlale naa sax jëlale naa sax jëlale naa sax réew ma ñu ne waaye ñoom lañ ko doon tere ci réew ma dëkkam bee di Tuubaa jii la muy tere tubaab yi ñoom ñemewuñ kaa def wala ko fay def da ngay làqatu te moom la tubaab yi daan tere Sénégal mu ngi koy ci kam ci biir ci réew tubaab yi la ko tubaab yi daan tere Sénégal la ko tubaab daan tere Sénégal ba tax ñu génne ko Sénégal moom la leen doon tere moom tubaab yi moom moom seen mu tere tubaab yi ñemewuñ kaa def biir dëkkam wala ku ko da ngay làqatu te moom li ko tubaab yi daan tere Sénégal mu ngi koy def ci biir réew tubaab yi te mooy lii mooy lii lii la leen waxoon danaa leen fekk seen réew yooyu di fa yëkkati turu yàlla yi te du ngeen ci mën dara te lu fa judd doon murit tu tànk yaa ngi nii soxna yee yëpp a tuub ay murit lañ soxna yee mbàkke ñoom ñëpp ay murit lañ seen tu tànk yaa ngi nii ay sëñ Saaliw ngay gis ak ay Muhammad soxna naata ak ñeneen ak ñeneen lii ndamu sëñ Tuubaa la bis buñ fi toogee ne duñ jàng xasida ñoom soxna yi sax dootuñ ñoo xemme dootuñ ñoo xemmem bañ leen di jël di jami sëñ saaliwaat leneen ak leen nañ xam li ñu doon lan la ay murid lañ ay saadeex lañu fas yéene doon koo xam ne nag moom ñuy yol yola yolam ak pas-pas bi ñun duñ la dégloo di joor sax balay may ngay ngay yëngal sañu pas-pas tey la ñuy gis a sant si dëkk barke borom Tuubaa Mbàkke ku fi am màggal màggal ko ñun ñëpp danañ ñëw tubaab yi yëgu ñuñ sax li ñu yor barki si alxadim tollu leen fii ba ñuy xool te nit fu mu nekk di fa liggéey sañu borom fekk fa ak teraangaam barki borom maa ko wax ca kaw nag ku mën dawal oto dawalal oto ku mën takk si soxna yi takkal soxna yi ku mën jàng xas na yëkkati ko ca kaw barki sëñ Tuubaa jàmm rek la ñuy am li am solo na mooy ñu jéem a mel ni sëñ Tuubaa bëgg ab taalibe mel ko waaye yi ci des yëpp nañ ko bàyyi ci loxo sëñ Tuubaa moom ñoom la te moom ñoom la woon fee ba am ndam te fii lay gën a am ndam ñu ngi jéggalu ci kàddu yu baax fii rek la ñuy waxe bëgg ñëpp fekk ñu ci ne barki borom Tuubaa